ci yenn kaay yi El Hadji Ousseynou Ndiaye

Aly Ngouille di ñu xamale Sénégal romb na fa xam ne dañu fay sàcc li nga xam ne nag moo di ay élection te jamono jojee réew mi quotidien di ñu xamal juróomi candidat yi Macky Sall professeur Issa Sall borom reetaan ngi ñu ngay wéy tour yéen kaay di ñu xamale ñi nga xam ne nag ñoo ànd ak Idrissa Seck di xam ne jongante yooyu daanaka tour mën nañ ko organiser waaw jongante yi kay tour du am coordonnateur bu idi 2019 muy Malick Gakou de xam ne Idrissa Seck dafay moom daamal gannaaw musique bi nga xam ne nag moo ngi amal daal di yekk lu mel ni xamee ki nga xam ne nag da moom la ñu dënmal waaw maanaam daal day xëy voté ji daal dem tëdd xaar li nga xam ne nag jëm na ci wàllu résultat yi Idriss boo ko xaaree yàlla boo dégg kay ñu ne Macky Sall takkal say bagage daal dem génn pale bi xabar wax suba meeting bi nga xam ne mi ko doon amal yéen kaay bi di xamal ne bu dee nag Macky Sall démb koy toj na fi nga xam ne nag moo di Guédiawaye waaw gannaaw Macky Sall moomee ndaamal Kajoor tasaare na fi nga xam ne nag moo di njaareem waaw Idrissa Seck toj na njaareem démb laa wax ñu bëri bàyyeekoon fu nekk ñëw fekk meeting bi nga xam ne moom la doon amal fale ci njaareem waaw meeting bi kay mbir yi daa ba sax sax li ëpp loxo dëgg kay fekk leen ma ci 24 heures waaw yéenekaay bi di xamal ne fi nga xam ne nag moo di Bignona ci bu nga eh, waaw lycée bu mag boo xam ne daanaka daal kafeel amalo askan wi bàyyi ko woon nañ fu nekk ñi nga xam ne nag moo di madame Mbacke waaye tamit ay kilifa yoo xam ne ràññee nañ loolu waaw démb kay madame Mbàkke wàcce na ko ba zéro waaw ndaxte kat responsable politique fu nekk lañ doon bàyyeekoo Omar Sarr xaritu Idrissa Seck ba ba Serigne ñëwoon na ca meeting ba Moustapha Seck Mawo borom dindi ñëwoon na ñëwoon na ca meeting ba ak yi muy fees fees lépp élection yi ñu dënmal muy xamal ne am na yaakaar bu wér ne ne Macky Sall dina gagné Touba